تلك آي وقرآن من ربما كفروا لو إن ذروا تمتعوا ويل فسوف يعلموا ما أهل قرية إلا معلم تسبق من أمها وما يستأخر وقالوا يا الذي نزل إنك لو ما تأتي جيجل زيارة تبارك الله لكو تكتي لخو الخليف سرين محمد المنير جيجل mu jottali ñu ko mbooleem xulafaa yi nga xam ni ñoo nekk ci réew mi di leen ñaanal yàlla yal na yàlla dolli leen a dëgëral yal na yàlla bàyyi leen ci sunu kanam yàlla sàmbal ñu leen te aaral ñu leen tabaarakallah noonu la ñuy e, ziyaare ñi nga xam ni ñooy kilifa réew mi ci wàllu aada tabaarakallahu ci njiital président de la république ah, monsieur e, Macky Sall ñu ngi koy ziyaara ak tabaarakallaahu njabootam yëpp incha allah di ko ñaanal jàmm moom it ah, ñaan yàlla yàlla dolli ah, tabaarakallaahu jàmm ci réew mi fi nga xam ne moom it fa la bëgg a yeggale réew mi ci ay xéewal ci defar yàlla na ko yàlla mottalil tabaarakallaahu ñu ngi ziyaarit sunu xarit sunu soppee nga xam ne ah ñoo daan toogandoo ci jotaay bi Eh, tabarakallahu yitte jamono yi gëna yaatu ba lek lek liggéey bi mooy laaj dootuñu mën a toog ci benn barab moom mu ngi ci lu mel nii tabarakallahu ñu ngi koy ñaanal yàlla na yàlla ko taxaw di ko xamal ni rek ah, tabarakallahu waa kër gi ak ñi nga xam ne ñooy suivre émission bi ñor namm nañ ko lool ñu ngi koy laajte lay maxtaar ñu lay bu baax a baax a baax Sam Mbàkke nga xamante ni mooy sunu njaatige fii ci dëkk bi da di ñaanal momit liggey bu rafet bu am solo bi nga xamne tambali nako yalla ko yalla may katanu mottali ko bi jahi sayidina muhammad ziyara sunu wayjur sunu baay serigne hamdul musa njegen ak sunu al-haji ahmad baro njegeen moom sëriñ mu ñuy sen bok al imam al haji ahmad baro euh, nga xamne tabarakallah euh, mo fi dan teew ci waxtu wi ak ci anam bu melni ñu fas yéene rek tabaarakallaahu jokk ca la nga xamante ne bi tàmbali woon nañ ko ndax ubbi woon nañu benn bunt bunt boo xamante ni tabaarakallaahu mu ngi doon wax ci almakaarimul axlaaq ca seydina ali karamallaahu wajhahu amoon yu mu ñu tànnal yoo xam ni nit ki bu fexee ba bénéfice wu ci jikko yooyu yàlla mën na koo defal sutura mu dund ci àdduna dund bu teey te bu dajeek yàlla it mu nekk ku yàlla di gërëm yàlla nañu ko yàlla defal wante it mu bañ a fàtte tabaarakallaahu uh, ki nga xam ne mooy uh, kilifa kër gi uh, tabaarakallaahu ak Serigne Pape Ndiaye ak équipe bi nga xam ne ah ñoo nekk ci ginnaaw liggéey bi yépp ñu ngi leen di ñaanal yàlla yal na yàlla doon leen dëgëral yal na yàlla doon leen taxaw yàlla gën a yaatal liggéey bi ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa ñu waxoon ni kon fay jaadu ci nit ki mu gor góorlu ba am xam-xam ñu indi woon la borom xam-xam bi waxoon ci ñeenti borom xam-xam yu wuute yi ñu woon ca ka nga xam ni nag tabarakallahu mooy ki nga xam ni amul xam-xam waande xamul ni amut xam-xam ba tax mu boole boppam ci boroom xam-xam ya bu wax jotee mooy wax bu jëf jotee mooy jëf seydna ali nañu kooku mooy danger bi ci yéen ndax tabaarakallaahu booy wax ak ñi amul xam-xam te amoo xam-xam bu boobaa ay jaahil ñooy gën a bari mooy ñi xamul dara mu ne kon na xàmmee ñooñu te moytu leen ndax kat ay danger la doon ci société kon yàlla nañ ci yàlla muccal mu nekkoon kon beneen jikko bi nga xam ne moo ci topp te muy ñeenteelu jikko bi mooy alxilmu mooy dënërlu mooy lewet waaw nee na ab jullit dafa war di lewet ab jullit foo ko gisee muy ñëw war ngaa njëkk a gis kanam gu leer kanam gu ubbeeku waaw ab jullit foo ko gis muy ñëw war ngaa seen bëñ ya tabaarakallaahu muy ree ngir yow mi nga xam ne mu ngi ñëw ci yow te xamul lu koy indi ci yow nga ñeme ko alxilm mu ne ab jullit war na nekk koo xam ne du ku ma ne benn rekk mané la ñaar motax yalla daan wax yonent bi takhallaqu bi akhlaqillah ah, takhallaqu bi akhlaqillah neena na ngeen jikko jikko yalla yi ndax yalla moy aji dinnerlu ci moy aji rek ndax bis bu nek doomu adama def yalla lu jar yalla fat ko ci sas nit dina def moromum nitam lo xamne bu ko jekko rek da fat ndax la mu ko def moo rëy te defuwut noonu it ñun doomu aadama la ñuy defee yàlla loo xam ne defuwut waaye du tee yàlla ca dénnéerlu ka yàlla ca lewet ka moo tax mu ne taxallaqu bi axlaaqillah ay waay na ngeen jikkoo sama jikko yi ca xadiisul qudsi ba mu ne fa ana sabuuru wa ana alxaliim yàlla man maay muñkat bi ah man yàlla man maay muñkat bi waaye man maay aji dénnéerlu ci waaw aji lewet bi nga xam ne jaam bi lu mu ma tooñ tooñ waaw lu mu ma tooñ tooñ bu rëccoo rëcc ñëwaat ci man rek man yàlla subhanahu wa taala ak accueillir ko loolu mooy dayot lewet yonent bi alayhi salaatu wasalaam àggoon na ci lewet ba bu taxawee sax dañuy gis njanaaw yi dañuy ñëw di taxaw ci kawam su ko defee nga gis ca lewet ga rek mu ne tekk dal ba njanaaw di dox soxlaam ba waxtu delloo jot mu dellu mu ne kon bokk na ci jikko yi nga xam ne doomu aadama daf cay rawe mooy lewet waaw mu ne it bokk na ci jikko ya li ñuy wax aljuudu mooy tabe waaw tabe waaw ab jullit dafay tabe waaw ab jullit dafay tabe ndax dafa am lu ñuy wax al juudu waaw am lu ñuy wax as saxaar am lu ñuy wax al isaar ñetti xaaj la ci tabe ndax dafa am koo xam ni su amoon junni nit laaj ko mën naa jël téeméer joxe ci junni ba waaw tabe na am koo xam ne bu yoroon junni nit dis ko soxla mën naa jël juróomi téeméer ya joxe kenn mënu koo génn ci way tab ji ndax bu ci nekk rek alalam la moo ko moom waande am na koo xam ne bu ko nit diisee soxlaam mën naa jël junni ba yépp jox ko moom toog deseeg yàlla motax koku la yàlla tag ci alquran ci wa ala anfusihim wa ana walaw kana bihim khassasa yàlla neena amna ay jam ñoo xam ñu tëdd lan bu ñu gisee soxlay jam ñu joxe ta fàtte sen soxla kon mu ne kon tabe bokku na ci jikko yi nga xamne da fay rawale julit motax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa jangale ci tabe lu rëy kenn gënu ko won tabe mom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ah te it daf ca yaron ay jabota ndax yalla tag dina ci jabotam bi di ali ak sayyidatuna fatim ah ca wa yutimuuna ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira tax te it yàlla mu ni koy sax ngi ci ci yii nga xam ne moom ñu koy jëloo ci sunu alal yi di ko jox sunu moromam jullit moo jur azaka waaw moo jur yeneen yeneen yeneen tabaarakallah waaw allazina yunfiquuna amwaalahum fi sabilillah waaw mënuñoo gis ku jaaxle mënuñoo gis ku soxla te jéemuñu ca kon tabaarakallahu kab nag wala joxe sax dafa bokk ci manam bank yi nga xamne du banki aduna yi ndax benn borom xam-xam dafay wax mu ne laa daara lil mar'i ba'da al mawt yaskunuha illa liman kana qabla al mawt banaha neena julit bi amul kër bu muy dëkk ëllëg yowmal qiyam lu dul ne fii ci bi muy dund ci àdduna la ko tabaxe waaw tabax ba nak du ciment du fer du béton waye tabax ba mooy ay jëf yu rafet waaw waaw ay jëf yu rafet kon nak tabarakallah aljud ñu diko wax tabe imam ali neena dafa bok ci yi nga xamne ne ay jikko la ñuy valoriser doomu adama yàlla nañ ko yàlla defal bi ci topp mu ne al fadlu waaw maanaam ngëneel nga am ay jikko yu remarquable ay jikko yoo xam ne foo doxee rek nit ñi naw say jikko kon dangay nekk kenn ci biir gaay yi waaw xam nga ñi ñuy fal ñëpp ay jikko la ñuy xool ci ñoom ba gis ne kat seen jikko moo gën jikko yi ñu ci des ñu fal leen lan leen fay fal waaw motax tax ngëneel moom tabaarakallaahu yàlla mo koy defal do doomu adam ah dalika fadlullah yutihi man yasha ah ñi nga xamne dañ leen di xol ràng leen ay martaba yi ngëneel man ma leen koy defal ndax man maay jëmbat ci ñoom jikko yo xamne fu ñu tok rek ñu boole leen ci ñi gën motax mu ne kon na nga jikkoo jikko bii nga xamante ni bii lu lu lu ñuy taxawal rek xoolal la gën nga def ko waaw waaw idfa billati hiya ahsan wala yàlla wax fa ida alladi baynaka wa baynahu adaawa mu ne ka waaw lu xew rek xoolal la gën nga jëfandikoo ko waaw yal nañ ci yàlla dimbali mu ne bi ci topp it ci ko ya muy albirru mooy mbaax waaw albirru mooy mbaax doomu aadama dafa wër wër góorlu sax même bu mbaax nekkul ci moom ca dëgg mu fexe ba ku ko xool yaakaare ko mbaax waaw ku ko xool yaakaare ko mbaax albirru moo tax yenent bi aleyhi salaatu wassalaam Dan wax ni al birru la yubla mune mbax de du rap ah gis nga tay man suma tassé ak yow dis la sama soxla ci sax mbax yow nga fajal ma soxla kan fuma ba yau. ans fuma dajé ak yow buma di nit sama xel dana jëf ca mbax ko nga ma defal waaw ah. ma bu guddii yoot nank ñëw fugu sa buntu kër ah sëriñ bi kat tey dama ñëw ndax kër ga dara néew fa ci sutura nga daal di yoot nank dam làmb sa waxan xool la fa nekk ci xéewal tabarakallahu nga daal di jël yitma ma jox ma def ko ci sutura loolu nga def day ci man dootu ràpp mukk ah dootu ràpp mukk moo tax yonent al birru la yubla ah baax du ràpp mukk waaye mu ne ad diinu waaw mu ne dee it euh, astafirullah mu ne it diine du faatu mukk du dee mukk waaw xoolal ba yàlla waxe yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko al yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum nicmati wa raditu lakum al islaama diina xoolal ba yàlla waxe yonente bi sallallahu alayhi ba tey diine yàlla subhaanahu wa ci kaw suuf mu ngi dox te yàlla dane ko woon li nga doon dox muy mission bi ma la yónni woon mat na waaw mat na yàlla nag mooy ku mat alkamaalu lillah yàlla nag jombale na wala ëppale na boppam di mat ba pare di manqué kuy jéem a manquel rek yow yaay manqué waaye yàlla moom la mu matal matal na ko ba pare ndax moo waxoon yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko ah, al yawma akmaltu lakum diinakum waaw kon nag wàññeeku wala matadi amatu fa yoon waaw incha allah ba buftu bay wal da nga gis ñoo xam ne doo xam fu ñuy jóge ñuy taxawal yàlla ci diineen bi subhanahu wa moo tax mu ne ko diinu laa yamuut diine ji du dee mukk nit ñi kay ñooy dee ba fi diine ji moo tax keroog ba yàlla subhanahu wa waxee loolu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mbégte dugg jullit ñi di zibile kenn ku nekk di fuun sa morom waaw kenn ku nekk di akolaat sa morom kenn ku nekk di jàppanteeg sa morom ngir ne kat mission bi ndakate mat na waaye xalal ababakar ni sadiq ca xel mu ñaw ma waaw ca xam diine ja daal di dem beru ca ruq ba moom toog di jooy waaw toog di jooy jooy yu métti bay yëqat saxaaba yi wëlbati ku bàyyi ci moom xel bis ko muy jooy xëy na sax tegoon nañ ni jooy yi yu bànneex la ndax lii leen yàlla yónnee aaya ne leen diine ji mat waaye ndekate Ababakar ni Saddiq xel maa nga ca leneen jooyut loolu ñu ñëw ci moom ko waaye Ababakar ah tey de du bésu jooy tey bésu mbégte la waaw tey bésu mbégte la nga toog fii di jooy lan ngay jooy mu ne leen ah da a xamul li ma xam rek waaw ah, waaye li ma yëg bu ngeen ko yëgoon di ngeen jooy ni man saxaaba yi ni ko waa lan nga yëg ba tax ngay jooy mu ne leen xanaa xamu leen ni mbir du mat mukk lu dul ne dafa tàmbali di wàññeeku allahu akbar ne mbir bu mat mukk lu dul ne dafa tambali di ah. tamma shay'un illa qad bada'a nuqsaanuhu waaw ah. lu muy tekki mooy sunu waa missionnaire la woon te ñëw na dox na mission bi réussir na ko ko mission bi mat kon mu fi defati des na loolu kay tàgge nañ leen ko te ko takar ababacrin sadiq loolu la doon jooy waaw moom yëg nii comme yonent bi moom mission mat na rek dafay faatu waaw dégg-dégg la waaw jeex na kenn mënatul téye sa bopp waaw kenn mënatul téye sa bopp ci saxaaba yi ndax mënuñu imaginer li mu dund ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu xëy ne leen yonent bi day faatu ñu daal di def délégation dem ci yonent ni ko sa waaji dafa mel ni xel mi dafa naqar ñi muy wax ni ah yonent bi ne leen ah lu mata bàyyi xel la de ah ah wax ah, yàlla ya, waxoon na ko innaka mayitun wa innahum mayitun da ngay faatu ñoom it dañuy faatu ah ah te yéen ñëpp di ngeen dajawat ci sama kanam man yàlla ya subhanahu wa taala kon diine yàlla bi waaye bi ci des nag mooy bàkkaar yonent bi nee na ak zanbu laa yunsa bàkkaar it bu tuuti baag bu mag caa boo ñoo ca bokk yam nee na kenn du ko fàtte loo mës def ci bàkkaar bu mag ak bu ndaw boo demee mu nga ca këyitu yàlla ba waaw waaw moo tax gaaya ba ñuy layoon ñoom ba ñu wan leen seen këyit dañu jaaxle gaa yi safara ya maa li haazal kitaabi laa yuxaadiru saxiiratan ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرة ولا يظلم ربك أحدا دنج لين دي جوخ سين فوي نخور باكاري بكار ني دافون 1980 2000 لا تا توب با نسخ تيغون نيوم سين بوب دنج كو فاتو ني سين فوي جفي اه ني جاخلي مي لي ني جوخ maa ngi xeesal kitaab ñu nekkoon ñu jox leen foo yu jëf yi ñu jaaxle waaw ah, mais fooy bii ñu jox bàyyiwul sax bàkkaar bi gën ndaw bi ñu defoon ci àdduna waaw ak bàkkaar yu mag yi nag saxiratan wala kabiratan illa axsaaha lu dul ne dafa peeg bàkkaar yépp ñëw ñu bindal ko sunu karne bi mooy waral wajadu maa amilu xaadira ñu fekk la ñu jëfoon yépp ci ay bàkkaar mu teew ci téere yàlla boobu mu jox leen fekk nag wala yazlim rabbuka ahada kenn tooñul maanaam yàlla tooñul kenn kenn ku nekk yaa tooñ sa bopp ah yàlla tabaarakallaahu tooñul kenn waaye kenn ku nekk nag yaa tooñ sa bopp moo tax mu ne kon alfadlu na nga am jikko jo xamanteni bi na nga jema bolé sa bop ci ñi ñu naan ñu gën way gor gor yi ci jaamu yàlla waaw fun la gis na ngay dox ci luy défar na ngay wax ci luy défar waaw yow lo xam luy yaq rek ngay participer yalla nañu yalla muccel ci lool bi ci top moy as sabru mooy muñ jikko la ñooñu la yàlla doon wax ne wa bashiri sabirin ah man muñkat yi dama leen di defal buuñaa dafa leen di def dama leen di bégal ëllëg wa bashiri sabirin الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم وأولئك هم المهتدون ولا يلا ne yawmal qiyam dina fexé ba ñu doon muñ ci samay nattu yi ma leen dan tek ma bëggal leen moy ñan ñi nga xamne nattu lu mu 10 10 10 10 ñu ne inna lillahi wa inna ilayhi raji'un moko sañ de moñu mom moñu ko saña tek teet yag yag ci karamam lañuy delu yalla neena ñoñu ëlëk jamm rek ah salawatun min rabbi ah te itam nak bu ngeen dee roy roy lañ ñooñu ndax kat léegi dafa mel ni dañuy jaawale ki ñàkk pexe ak ki muñ parce que muñ ak ñàkk pexe du benn ah mbir dina xew nga bras de fer nekk ci ngi ñi ngi ba ñépp jéppi la ngay doog a wëlbatiku ne kat maa ngi muñ muñuloo da nga amul pexe waaye li yonent bi wax ne as sabru inda sadamatil ula lii xew bu xewee rek nga muñ dellu si ne ah yàlla la soob mu doxee noonu waaw moo tax yonent bi bari na ay ayaat yu ñëw yàlla daf ko daan muñ loo waaw waaw wasbir li xukmi rabbika yooyu yëpp waaw fasbir li xukmi rabbika wala tuti minhum aatiman aw kafuura waaw wala wasbir ala ma yaquluuna wahjuruhum hajran jamila gis nga yonent bi yang da ko doon muñ loo fasta gor ma tu'mar waaw gor waaw góorgóorlul muñal rek bes ngi ñew yep ngay fàtte ma begal la man yalla parce que ma yor ah man ma yor kon muñit sidna ali neena jikko la bo xamanteni jikko gënu ko kawé bi ci top mu ne ash-shukru moy sante waaw ah, sant yàlla asukuru mooy sant sant lu ñëw rekk nga sant boo santee rek yàlla dolli la waaw mooy cantuk imaamu shafii ba nga xam ne radiyallahu taala an ba mu yëgee la dal yàlla def ca moom ci xéewal fumu mu fëgg rek lu mu lamb rek muy noona mu yek ni kon yàlla defal nako xewal ah ah mu yek bopam ci xewal yàlla mu dadi def ties khalimam dan ne aw laytani ni ne abuux bi shukriha wa kafaytani kull al umuri bi asriha fala ashkurannaka ma dumtu xayan wa in amut fala tashkurannaka adumi fi qabriha imaam Shaafi wax lool ne man yàlla subhaanahu wa taala méngalee nga ma xéewalee nga ma mboole mi xéewal waaw awlaytani niaman waxul ne awlaytani niamatan déedéet niaman ay xéewal ndax yàlla wax ne wa in tauddu niamatallah gis nga waxul wa in tauddu niamallah wane bu ngeen doon jéem a euh, takk benn ci xéewal yi ma leen defal mënu leen ko wa in tauddu benn xéewal bu ngeen ma ci doon jéem a delloo njukkal man yàlla mënu leen ko bu weer dee woon rek kenn ku nekk na yàlla nañ ko jox facture bët li ñu xool ci weer wi yépp ñu fay ko yàlla mënuñu ko lañu dox lañu wax lañu naan lañu bànneexu yooyu yépp bu ñu ko yàlla facturé woon ñu am problème kon benn xéewalu yàlla mënuñu cee delloo yàlla njukkal imaam Shafii daal ne kon nag te nii ne aman yow yàlla daal dajaleel nga ma ay xéewal nga jox ma ko man sa benn jaam bi waaw ah. waaye xéewal yi nag man lottu naa ci ci ci sant la ko munuma ko waaw te itam nag ma seetlu ci bi nga may jox danga xool boo may jox rek li gën nga may tànnal jox ma ko waaw joxoo ma n'importe dangaa tànn li gën nga di ma ko jox waaw waaye nag ah fala ashkurannaka ma dumtu xayyan loolu rek laa mën di la sant feek sama bakkan bii mu ngi noyyi ah, di la sant rek yow yàlla subhanahu wa taala mu ne wa in amut su ma faatoo sax fala tashkurannaka aazumi fi qabriha dinaa fexe ba samay yax di continuer di la sant ci biir bàmmeel kooku yëg na li ko yàlla defal waye lek bu suur rek raay sa rek tabarakallahu barke señ bi doyna war jarna bayi xel cant cant yalla dabor ah sant yalla ndax amna yo xamanteni bi bu ca yalla gennon rek musiba ah amna yo xamne ne bu ca yalla gennon rek tabarakallahu yàlla nañu yàlla euh, dollee dafal xéewal ba mu jurul ñu ba mu jural ñu la in shakartum la azidannakum waaw ñu ma santee rek ma dollil leen yàlla nañu yàlla dollil waaw bi ci topp it mu ne walliinu waaw walliinu baaqiha mooy nooy ab jullit dafay nooy nooy nag suñ ko waxee waxuñu yambar fa ñoo xam ne nooyuñu dañoo yambar jullit du yambar jullit jullit dafay dëgër waaye nooy suñ ko waxee ci waxin ak ci jëfin balaa ngay réagir li ni nëbbu ci yow nanga fexe ba nanga demee ak ak dal waaw waaye nag mbir dina toll foo xam ne jullit dafay taxaw fa man ictada alaykum faatadu alayhi bi misli ma atada alaykum yàlla waxoon na ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko ah dama la ñoom ci eh, maslaxa la ñoom waaye nag bu ñu la naree fontoo na nga taxaw ah, ah nga won leen ni li ngeen yor maa ngi lu ko ëpp ah, ah. moo tax mas naa dégg ci sunu imaam al imaam alxaaji ahmadu baro njegéen al imaamul ñung koy ziyara bu baax momit diko ñaanal yalla yalla yalla do liko wër wér mu ne ah léeg-léeg day kër gi bu fi gaynde nekké waaw xaj yi nekk ci biti di mbëw rek di mbëw rek na jaadu na léeg ñu génne gaynde gi ci buntu kër gi mu daadi di mu daadi di ngir xaj yi kër gi amna gaynde gu fi ne daf leena gëna yaru rek lu am solo lele mbiri léeg mbir yi dinay da ngay réagir waaw waaw da ngay waaye yàlla waxoon yonent bi ni fa bima rahmatan min allahi linta lahum gis nga waaw waaye nag walaw kunta faddan lan faddu min xawlika waaw akbar yàlla ne yonent bi gis nga boo gisee gaa yi ñeme la ñeme la di ñëw di la laaj di ñëw di di la dugg li nga leen won la ci nooy ci dal <clears throat> waaye nag boo nekkoon koo xam ne danga dëgër fu ñu la fekk yaa ngi ñëggal sa kanam mu ne jamais ñu toog sa wet te am na loo xam ne boo ko bëggee jottalil yàlla ci ay mbindeefam dafay am jikko booy taxawe waaye luñ la wax rek nga ni damay font ba ci wuy jur bi ci biir kër gi waaw war nga góorgóorlu ba sa njaboot ñeme la waaw war nga góorlu ba sa njaboot ñeme la waaye yow daal boo duggee ci kër gi kenn amatul jàmm. xale yi daw làqatu ci soxna yi dem fatu ci ndax lan da nga imposer ni da nga am fulla ci bir kër gi ay ful la deug moy wàcce sa bop ba mën di communiquer ak sa njabot yonent bi sallallahu alayhi wasallam de ngeen niñ ko netele ci ay qissa dan na sax bootante ak soxna soxnaam waaw am na bu la ñemewul tabarakallah dina mbir dina xew du lako ñeme wax ba ci sunu tabarakallah njabot bu jigen gi il faut que sen yaay yi di wàcc di communiquer ak ñom waye sa dom bu commencé nek jank rek commencé yow nga melni ni wujju bi dedet teel waxtan ak mom bu ko mbir dalé ca mbedduma bu ñëwé kat na la yaay kat li ak li ak li ak li su ko défé nga mën di xam fi ng koy jaar pour dimbali ko kon nak euh, tabarakallahu yàlla nañu yalla defal digg ak top yoy dal ay jikko lo won yo xamne euh ne won nañu indi ko ci kër gi tay tabarakallah Euh, képp kenn ci ñun rek mën cee jariñoo yàlla nañu yàlla defal ak dégg ak topp ñu ngi ziyaaraat bu baax a baax a baax sunu caméraman yi nga xam ne ñoo nekk sunu kanam tabaarakallaahu di rafetal mbir yi yooyu Serigne Pape Ndiaye ak équipe bi yëpp waa Lac TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di ñaanal yàlla kër gi yàlla na ko yàlla màggal te barkeel ko tabaarakallaahu yàlla gën a yaatal liggéey bi gën koo dëgëral di ziarah bu baax tabarakallahu mbokki julit ñepp ak kilifa yi mi ci walu diine ak kilifa yi mi ci walu aada di ziarah bu baax sunu xarit serigne libas lay ñu koy ñaanal yalla yalla yalla delo ci ko ci liggey bi ak jamm ci barka yonente bi alayhi salatu wassalam sen mbokkum al imam haji ahmad baro mo ñewon rek doon wecconte ak yeen di ñaan yalla luñ ci jubal ñu xamne ci mbaxu yalla la katanam ak sañ-sam waaye luñ ci yàq rek ñu xam ne nit la koo xamante ni xam-xam ba bariwul tabarakallahu te ñàkk fasaaxa lool ñu ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala mu defal ñu dégg ak topp in uridu illa al islaha ma stata'tu wa ma tawfiqiya illa billahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wa ma dhalika ala allahi bi aziz wassalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu تلك آية وقرآن من ربما إن كفروا لو إن ذروا تمتعوا ويل فسوف يعلموا ما أهل قرية إلا معلم تسبق من أمها وما يستأخر وقالوا يا الذي نزل إنك لو ما تأتي